salaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégal ñu ngi leen di euh, nuyu di leen euh, ziar di leen dalal ci suñu émission nay leer tey ñuy dalal koo xamante ne kenn doot ko présenté si Thiès muy Modou Fall responsable politique APR ci Thiès ñu ngi lay nuyu. Thierno ñu ngi lay ziar di ziar waa Sénégal yëpp ci dalal bi nga ñu dalal tey. tey nag yaa ngi ñëw ci émission bi ci benn contexte boo xamante ne ñun journalistes yi xëy na neexuñu. te bu ñu sañoon aussi euh, am lu ci am ba suñu naataango bu mel ni Pape Alé tey ñu jàpp ko tëj ko te liggéeyam la daan la doon def euh, ñu la ciy laaj euh, sa xalaat. loolu li ma ci tontu aussi c'est simple bu njëkk bi dafa am lu muy déplorer Thierno d'abord mooy ci organisation yi nga xam te ne ñoom ñoo ngànk journalistes yi. Mhm. parce que Thierno xam nga Sénégal dafa mel ni kumba am ndey la ak kumba amul ndey. Mhm. on a vu euh, fii euh, nu mu tudd groupe GFM ñu attaqué ko Sénégal loo xamante ni foog naa histoire politique et du pouvoir et de l'opposition musul am kenn marchul kenn yuuxul kenn xeexu ci dañoo def communiqué rek condamné ko on a un journaliste boo xamante ni place de l'obélisque opposition bi woote mu ñëw ñu dóor ko ba nar a yàq matériel am loolu lu garaaw la kenn waxu ci kon tey buñ ñu ñëwee ba tey Pape Alé di journaliste di chroniqueur vraiment ñëpp d'accord ko ko nangul ko ko mais aussi au-delà de ça moom casquette politique parce que man souvent je le dis pour man Pape Alé c'est un pastéfien c'est ça la vérité. mais fan nga teg loolu. fi ma ko teg mooy euh, xam nga Thierno damay leen di yóbbu seen article cinq yéen seen code de la presse moo ne yenn journalistes yi dafa am loo xam ne da nga ko war a làmboo saa su ne mooy seen éthique seen déontologie mais seen neutralité en toutes circonstances. surtout ci seen liggéey mooy leen uti information ak joxe information. waaw mais loolu la def mais mu ne leen utub information ak joxe information dafa am ci proportion yu mu yem article boobu tegal nañ ci ne am na information yoo xam te ni que nga jot source que ngay source bi yow wala nga am source du lay divulguer mooy li nga xam te ne dafa dëppoo euh, euh, euh, lépp loo xam te ni c'est secret ci ci Sénégal loolu yoon encadré ko kon loolu aussi que mu divulguer ko mu reprendre ko wala mu divulguer ko pour man même àtte la kon loolu boo amee li may njëkk a wax Thierno. journaliste Sénégal yi ku lu nit mën président Macky je pense bien code de la presse bu amee c'est ci aéro président Macky Sall kon il tient à la liberté de la presse maison de la presse bu amee ci Sénégal c'est le président Macky jamais un président n'a jamais soutenu non kan moo ko finalisé c'est le président Macky mais moo ko finalisé kon ci moom la sottee troisièmement en termes d'appui à la presse je crois que ne jamais un président n'a jamais fait que le président Macky Sall kon problème ak presse bi mais aussi justice problème ak Pape parce que divulgué na lu divulgué yoon yoon yoon ne aussi woo ko aussi téye ko ci loolu beneen bi am solo mooy Thierno pour fois une fois au Sénégal boo seetloo beaucoup de journalistes même des chroniqueurs yoo xam ne ay peeru pap Alé Niang lañu ils ont osé dire non nii il ne fallait pas te leneen li may wax par rapport loolu Thierno daam lu may wax Bamba Kassé daam lu ma koy rappelé il y trois semaines dafa toog faram fàccee fekk ñuy wax ci problème arme arme mooy contrat d'armement boobu mu ne moom Bamba en tant que journaliste Bamba muy secrétaire SYNPICS mu ne am na loo xamante ni information moom Bamba Kassé bu ko bu ko ku ko yónnee wala mu gis ko da koy effacer day effacer email bi et il passe à autre chose parce que n'a pas mais loolu xam nga loolu position am la loolu position am la mais tey am na koo xamante ne dafa nekk journaliste investigateur. di mm-hmm. investiguer di am information mm-hmm. surtout loo xamante ne parfois yéen da ngeen di bëgg di ko nëbb. Mm-hmm. donc tey bu ko génnewee ñu koy topp ci loolu aussi est-ce que am na fu ñu ko teg foo xamante ne ci logique la. mais xam nga fi ñu ko teg mooy euh, euh, lépp luy document. estampillé secret waaye nag Thierno ñun en tant que sénégalais euh, muy moral di éthique war na tax ñu bañ ko génnee surtout ko loolu c'est encadré par la loi dañu ne lépp loo xam te ni bi document interne armée la gendarmerie police lépp loo xam te ni secret défense la muy journaliste bi muy man sénégalais bi muy Macky Sall mi président muy député bi amoo droit divulguer ko wala reprendre ko mais ce que li mu divulguer aussi top secret la ah, wala secret c'est un rapport interne de la gendarmerie mais loolu du moom rek xam nga la problème en que tey li am mhm. du Pape Alé Niang donc moom moo diviser lu mel noonu waaw tey am na ñeneen ak ñeneen ñoo am diviser nañ lu mel noonu mhm. mais est-ce que ñeneen ñooñ topp nañ leen mais comme kan par exemple ah, tey rapport bu ñuy wax ne tey euh, message police boobu ñuy wax tey waaw mais message police boobu ñëpp jot nañ ko jaarale ci seen i whatsapp ak feneen ak feneen mais mais mais est que kenn jël na responsabilité mais lan moo tax ñu tëb tëb rek dem jàpp parce que Pape Alé Niang aussi quoi qu'on c'est quelqu'un qui dérange mais non déedéet xamul tax man man Pape Alé ma dérange pas parce que man xam nga yow lay déranger mais dafay déranger tey peut-être seen président non non suñu président Pape Alé mënu ko tax mënu ko déranger parce que aussi xam nga nit quand tu te catégorises ci benn parti man je dis que ne loolu amatul lu lu mu ñu déranger. mais est-ce que réellement qu'il s'est catégorisé ci parti non catégorisé ci parti mooy. xam nga tey nit ñi ñuy wax ne tey Pape Alé dafa forfait wala dafa forfait dañuy wax rek seen xalaat par rapport ak benn situation bu ñu gis. waxuñu suñu xalaat de dañoo li ñu wax le comment les commentaires sont libres les faits sacrés Pape Alé site bi mu yor tey au début dañ ne moom moo ko moom Sénégal yëpp di dégg yéen journalistes yëpp di dégg ñu dem ba ci biir mu fuité ne Ousmane Sonko moo ko jënd may ko ko.

deuxièmement Pape Alé toog Ousmane Sonko taxaw ku nekk wax relation personnelle ñu am loolu seen relation personnelle la mais troisièmement euh, Thierno un journaliste mais Sénégal am na du ko def beneen organe de presse du ko def xam mooy lan tout une journée boo xëyee yow tu enfonces un gouvernement sa position la d'accord na toute une journée boo xëyee tu encenses une personne pas l'opposition Ousmane Sonko kooku bu ñu ko catégoriser wul de pro Sonko kan la ñuy catégoriser. pro Sonko sa xalaat la loolu sa xalaat la si c'est des faits saa yu génnee def live. Mhm. wala mu def émission Dakar Buzz. ba ci mhm. ay chronique am. Mhm. chronique yëpp mun naa la ko génneel fii. amul li gën a élémentaire Thierno fii. Mm-hmm. nit na fi toog critiquer Macky Sall yéen di ngeen def ay analyse mm-hmm. critique contre Macky Sall au mm-hmm. gouvernement mais di ngeen def analyse yoo xam ne c' est positif par rapport au gouvernement au président Macky ci mu def lu baax je défie quiconque Sénégal na mu génnee fi Pape Alé mu sa taxawee ne lii teer bii kat a am na as njëriñ ci président Macky Sall mais xam nga xam nga lan moo ci non xam nga loolu xam nga tey lan moo ci gën a bizarre waaw Pape Alé Niang tey li mu def ba ñu téyeku euh, mu mu nga tey moom lay defal tey Ousmane mais Pape Alé mhm. avant Macky Sall doon président. Mhm. moom il a osé invité tey Macky Sall fu kenn ñam woon invité Macky Sall. booy fal 2STV. Ah, mu teg ko ci plateau wax ak moom Sénégal mu Macky mun a wax ak sénégalais. mais ma posé la benn question tu penses que ne bu neexuloo du yow yaay posé. non fii man maay laaj yow ngay tontu. moo tax ma lay tontu man la mais dama ne. kan xam nga tey Pape Alé Niang. waaw Pape Alé Niang. Mhm. li mu doon def. Ah. avant Macky Sall doon président. di soutenir Macky Sall. Mhm. ba tey maanaam ci même lancé la nekk. te boobu ak ah, léegi. Thierno dégg Macky Sall. ñaaññoon ko Pape n'a jamais soutenu Macky Sall. Pape a soutenu Idrissa Seck on est d'accord. waaw mais ba muy jël Macky di s plateau. mais en tant que il l'a fait Macky Sall wax programme am boo xamante ne moment boobu noon kenn ñemewu ko ah, woon. ah si ñeme woon na ko. Sud FM ñeme woon na ko attention Thierno. mais tey ñooñu ñooñu ngeen tuddee les ñeme na ko. su defee FM ñeme na ko. mais tey ñooñ yéen ñooñu tey. ngeen tuddee bi ngay wax loo mun a waxal El Hadj Ndiaye il a été toujours neutre man loolu laa koy seedeel te plateau boobu am na ñu fa jaar ci ils ont été toujours critique ci état bu fi ne du dëkk loolu dama koy seedeel El te damaa jàpp ne Thierno Sénégal bii tey lu coow li bëri bëri bëri tey patron wu Sénégal bu ko neexu loon tey Thierno man du ma fi toog parce que nag mooy sa patron dañuy waxtaan kon bu ko defee c'est que dafa neex El te il était dans son rôle Thierno xam nga man lu may lancer appel aux journalistes xam nga tey aussi mm-hmm. xam nga tey mm-hmm. euh, mënu leen toog si seen rok mm-hmm. bëgg a xam parfois fonctionnement presse waaw ah. xam nga euh, man su ma la invité ci émission amul kenn koo xamante ne wax na naa la invité wala bu ma la invité am na nag hiérarchisation nu muy fonctionner dans tout organisation mais nekkul ko tey ki jàll ci organe bi rek patron de presse bi lay neex wala amaana sax xamula dëgg moo tax parfois aussi il faut que tamit ñu bàyyi journaliste aussi pratiquer seen métier de manière libre. na foofu li ma la ciy tegal mooy man man dama am lu ma gëm te nit du ma ci dindi man man dans ma vie musuma ragal critique parce que critique aussi ñaar la dafa am critique positive ak critique négative. Mm-hmm. nit dina la critiquer man pour man li may njëkka def mooy est-ce que ce qu'il a dit ci man dëgg la. Mm-hmm. est-ce que ce qu'il a dit ci sama comportement dëgg la. Mm-hmm. wala est-ce qu'est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit ci gestion dëgg la dëgg. bu ma xamee ne lii dëgg la wala lu am njëriñ pour ma la wala askan bi mhm. dama ci dëgg suma tànk kon li may lancé appel journaliste yi mooy man ñoom ñoo ku nekk maanaam sa ligne éditoriale yaa ko moom mhm. mais aussi nañu bàyyi xel ne Sénégal muy Sénégal di beneen beneen beneen organe de presse mhm. muy APR di réew mi di PASTEF di PS ñëppal di déglu kon li ñuy ñaan rek di leen lancer appel mooy quand ils informent na doon juste et équitable et vrai bañ a jéng ci benn côté tey wax dëgg bu neexee waa APR nañu wax dëgg mais bu neex bu bu naqaree waa opposition tamit tamit nañu wax dëgg man loolu laa di lancer appel te loolu na permettre aussi comme kaawu Pape Alé yi bañ a a am te leneen li ma leen di lancer appel mooy journaliste sénégalais nañ ci bàyyi xel aussi loo mën a wax nos journalistes sont des professionnels ils sont bien outillés ils sont bien formés aussi kon muy man en tant que politique muy muy journaliste bi en tant que journaliste wala journaliste d'investigation ku ci nekk droit bi la yoon jox muy sa prérogative na ko utiliser d'accord na mais aussi en tant que sénégalais en tant que citoyen dans une république et dans une démocratie aussi chacun d'entre nous on a des droits ñun sénégalais on a tan à parler de nos droits de nos droits mais sénégalais bu ci nekk nag ku mën a doon nag du président daal bi bu ci suuf ku nekk ci ñun on a no devoirs kon devoir yooyu nañ ci bàyyi xel parce que devoir yooyu loi moo ko entre encadré te boo ko enfreindre aussi la loi aussi day day day dal sa kaw waa léegi. Mhm. Euh, ñu jeexal ci kaaw Pape Alé mhm. fu ñu koy jeexalee mooy. Mhm. tey lu ñu jàppee tey Pape Alé ñu ne dafa génnee lu ñu naan secret défense. comme yow ni nga ko waxee tuddee secret défense. tey ñi génne quarante cinq milliards yi armement bi. mais tey ñooñ lan moo tax yoon topp leen. ah mais ñi ko génnee du du ñu Sénégalais de. déedéet mais ki ko génnee mu ngi fii si Sénégal journal Le Monde xaaral journal ki ko génnee mu ngi fii. non xaaral journal Le Monde moo ko génnee. waaw. mais que nga génnee mu ngi fi. non dama ne journal Le Monde moo ko. te ba amul benn inquiétude. non dama ne non dama ne journal Le Monde moo ko publié du dëgg. yow rek laay déglu. les gens l'ont repris on est d'accord mais état bi bu mu génnee li mu ci wax c'est clair état bi dana document boobu d'abord un c'est pas conforme muy benn deux la ñu wax. mooy journal Le Monde la état bi waxal parce que moom moo ko génne dañ ne par rapport li ñuy wax naan. complot mais journaliste ngi fi. non moom laa wax mais dama ne du moom moo ko en réalité <laughs> li ko ko publié loo mën a wax man que mais dama ne journaliste bu ko publié. taxaw na TV5 j' maa ngi yor déclaration. ah dama ne TV5 nga wax. Ah, mais mais loolu Thierno li ma ciy teg mooy. mais kooku xam nga ne mu ngi fii mais xaaral xaaral Thierno moox la. waaw mais est-ce que d'accord nga ak man. d'accord d'accord naa non Thierno xaaral dama ne. <laughs> Sénégalais nañu bàyyi xel journaliste Sénégal nañu bàyyi xel lenn. Mhm. France boo fa demee. Mhm. boo demee États-Unis mhm. damay nettali benn anecdote boo xam ne war na yee kuy journaliste. Euh, euh, kii nu mu tudd Julian Assange. Euh, il est hollandais je crois bien. kan moo koy poursuivre fan lañ ko extrader États-Unis ci lan décret top secret yu États-Unis yu mu xam ma ndax dégg ma. maa ngi lay déglu bu baax kon may wax ne aussi loolu nañ ci bàyyi xel beneen bi mooy français ab journaliste français musuma mm-hmm. bo sama de mémoire doom boobu musuma gis journaliste français loo xam ne. Mm-hmm. dañu si estampillé top secret. Mm-hmm. France un journaliste français publié ko. comme man je crois que ne non c'est que document boobu dégg la woon ñoo war na njëkk taxaw wax ne. en tant que Sénégalais. ce que vous vous ne ferez pas contre votre pays vous ne devez pas le faire contre contre. la mais mais dama ne man li si jaaxal mooy moom def na ko. Hmm. mu ngi fii di la dégg. waaw soriwul te taxul. gars yi topp ko comme nu ñu toppee Pape Alé. non tu Pape Alé attends Thierno Pape Alé li ñu ko toppee. c'est clair mais deux poids deux mesures. bu Sénégalais di dénoncer à chaque fois tey est-ce que nekkul moo. feeñaat non Thierno du deux poids deux mesures. dama am leen loo doo ko wax mooy Pape Alé li indi lii aussi mooy li njëkk Thierno kenn du ko wax Pape Alé fii la génn ne général Moussa Fall c'est un voleur il a volé des milliards il a des milliards en valeur ci ay immeuble Dakar le général muy woo commandant gendarmerie. mais mais attends attends Thierno non foofu laa jëm foofu laa jëm. ci principe foofu laa jëm ci principe bi laa jëm. waaw ba ñëwee biir ça a été confirmé que loolu amul. il a blessé un homme un gendarme il a mis en mal la gendarmerie sénégalaise. et pourtant Thierno loolu taxul kenn jàpp ko et pourtant mënuñu ko ci jàpp xam lu tax d' abord un honnête citoyen bu mu mun a doon un journaliste amoo droit ñëw taxaw ne kii sàcc la ti nga créer ses preuves tegal ko ko et pourtant kenn jàpp ko. mais bu ñu demee ba yoon taxaw nag Thierno il faut ñëw ñu d' accord yoon boobu tey mooy apprécier nii yow nii man nii keneen c' la justice. et Sénégal dañu am tendance su soit di wax deux fois deux mesures wala ku mën day amul ku mu amul day mais ne. Thierno. waaw mais là en réalité. aussi moom ngay gis mais mais ah, il faut ñu d' accord il faut en réalité tam moom ngay gis. parce aussi y' a des cas beaucoup plus sérieux tey. ah ci biir presse bi non y' a ah, beaucoup plus sérieux tey. ci ñoo xamante ne tey APR lañ bokk. def lu ne weng. ñëpp gis ne def nañ lu ne weng. mais amuñu benn inquiétude. parce que APR lañ bokk comme kan. yow mi yaa ma gën a xam. non non déet attends comme kan. Thierno xam nga aussi ba muy posé question. non yaa ma gën a xam bëgg mu leer tey je suis d' fi. Ah, parce que faux billet APR la bokk. mais je te pose une question. mais amul ba. doomu ministre Mbaye Ndiaye mu ngi en prison à Thiès. Ah, est ce que ah, nag la ñu leen jàppale est ce que non dama ne doomu ministre. xam nga tey xam question li mujj ci fee doomu ministre Mbaye Ndiaye. waaw mais problème phobie yëpp mu ngi en prison. mais tey xam nga tey doomu Mbaye des députés de la République de l'APR jàppale ñu ci problème passeport diplomatique ñu en prison. non may ma non may ma may ma ça veut dire quoi Thierno. nga entre Thierno may ma entre des accusations contre une personne ak ak la décision de la justice il faut que Sénégal ñu d'accord lenn Thierno te loolu je l'ai je l'ai toujours décrié nañu bàyyi chaque fois rek. waaw mais la justice ne doit s'appliquer mais xaaral mais xam nga tey xam nga tey xam nga tey xam nga tey non attention Sitor Ndour flagrant délit. non attends non dama ne mais il a été arrêté non. mais dañ koy arrêté parce que c'est normal. non waaw mais beneen bi mooy tey. fu mu bokk tey tey tey tey man li ma jaaxal jommal ma tey ci xam nga mooy la. Mhm. Euh, tey la cas Bougazelli yi mm-hmm. ah pour ma citer ko benn yoon mu leer boo ko jëlee liñ ko jàppee mm-hmm. affaire phobie mm-hmm. tey yow ci boppam xam nga phobie fu mu mën a jëmale réew te pourtant Bougazelli yi mu ngi vaquer ses préoccupations correctement bu man pose léegi Thierno man li ma lay tontu mooy Bougazelli yi bañ koy bañ koy defal LP lan lañ ci def te du Bougazelli ah non attends déedéet mais fii xam nga képp ku nekk képp ku ah, la jàppee ah c'est pour quelques jour après ah, ñu ne ah, non dafa feebar no non Thierno Thierno Sénégal il faut ñu d'accord ci benn principe Thierno démb maa ngi woon tribunal barki démb ba minuit pas moins de euh, cinquante LP mooy liberté provisoire. Mhm. Euh, énuméré nañ ko sama kanam. Mhm. kon nag pour lan kenn du wax lu tax chaque fois LP bu ñu ko defalee waa APR ñu wax te la ko chaque jour justice defal nit LP ba ba sa date jugement jot ñu convoqué la jugé la. pour lan léegi loolu tam nañ ko defal Pape Alé Niang ñu bàyyi ko. mu ne déedéet non attends Thierno xam nga. il faut ko ko defal ñu bàyyi ko xam nga tey xam nga tey Thierno attends man je ne que ne il doit pas être libéré mais dama ne. est-ce que ces avocats ont demandé une liberté je te pose cette question. non yeggaguñu foofu ah waaw mais kon moo wax la ne la tey Thierno même Pape Alé Sall était condamné ki koy njëkk a gracier ça sera le président Macky Sall amul problème boobu moo fi gracier Khalifa Sall. ak leneen ak leneen kon kon damay wax ne ñu ngeen jàpp dafa bari non Thierno ah. il faut ñu bàyyi ne non may ma may ma Thierno dama ne nañu bàyyi bu nekk ci liggéeyam ñu ñu bañ def ci moom pression te justice bi ils sont sereins au Sénégal ba nga xam te ne bii. ma ne pression wax. dina tax man Modou Fall su ma nee problème ñu téye ma. kii la parce que yéen yor télé yéen yor rajo yéen yor site kenn du leen laal bu ñu waxee vous faites pression bind def pression ci justice bi. loolu dama ne la loolu vous avez le droit. mais mais la justice sénégalaise a le droit aussi et le devoir. aussi liggéey li mu war a liggéey bu ñemee ba yoon may Pape Alé mu demandé liberté provisoire ses avocats mais qu'il le fasse. yoon bu ko apprécier mu bàyyi ko. waaw mais tey kan moo waxoon. Mhm. am na dossier yoo xamante ne tey. su mhm. yeggee justice man maa ciy teg sama cooñ. kan moo ko lool man xaw ma ko ko wax. ah du président Macky Sall ah, moo ko loolu si sa avis la nga wax yow Thierno. Ah, ah Thierno Thierno dama wax leen président Macky Sall wax ko. ma laaj ma posé la ñaar ah, waaw léegi Thierno dama ne. loolu man man de doom Thierno non dama ne de mémoire doom man loolu mosuma ko dégg. ah waaw comme mosoo ko dégg xam nga nit aussi lu am rek nga koy wax waaw moom laa comme mosoo ko dégg. man je prends mes responsabilités wax ne moom moo ko waxoon. loolu je me concerne ça mais man gëw ma ne Macky Sall. waaw dina def exprès di lay dossier di ci teg coon comme yow mosoo ah, ko ko dégg xanaa à moins que par exemple lu mel ni si njëliwaat kooku tegoon na ci ah, de xam teg ah, <laughs> na ci na. mu def ko <laughs> waaw. kon wax ji leer na léegi nag nu mu ci tegee woon coñcam aussi kaaw Pape Alé Niang aussi ñun ñu ngi ko koy demander encore une fois que lépp lu ñu bëgg rek di ko demander mhm. mooy ñu mën ko bàyyi mu dellu si njabootam. loolu Thierno li ma ci teg ñu kon ñu accéléré. nit la te kenn yéenoo ko prison. waaw loolu président bu ko mënee it ci pouvoiram bu dee pouvoir am may na ko qu'il le fasse. loolu waaw ñu accéléré tuuti euh, fan yi seen réew mi fole Thiès. Hmm. xaw na yëngu tuuti ci conférence de presse bu. Euh, administrateur Pastef bi defoon di Birame Souleye ci problème mu question de cumul de mandat. Hmm. ñu déggoon ci euh, parti wu Pastef lu ñu waxoon euh, ci cumul de mandat ak ñu ñëw dégg Birame Souleye mel ne li mu waxoon ak euh, li ñu waxoon bu njëkk dafa waroo loolu li ma ciy wax rek mooy li ma ci waxoon mooy d'abord euh, Birame Souleye dañuy wax kaaw Birame Souleye ci cumul de mandat yi rek mais man ba ma ciy wax du woon kaaw Birame Souleye moo tax ma wax ci parce que ma fàtte sénégalais Ousmane Sonko mi patron Birame Souleye défendre fii di critiquer chaque jour APR ci cumul de mandat yi Ousmane Sonko il député Quand il a été maire de Ziguinchor, il a presque cumulé deux mandats durant presque 7 à 8 mois. te li garaaw mooy il était mon président Pastef doon député doon maire Ziguinchor. waaw mais attention muy muy benn mais attention Ousmane Sonko. Mhm. même ba mu nekkee député. Mhm. après nekk maire mhm. jamono jooju fekkoon na Sonko dematul woon sax assemblée nationale. Ah, en plus avec le cas Adji Sarr aussi nekkoon na benn problème ba am den au moins moom même bu démissionné wul woon aussi loolu mën nañ ko comprend quand même. parce que boobu déjà fekk na ñu tekki. mbalaanu kiirlaayam mais mais xam nga aussi Thierno mbalaanu kiirlaay ak sa fonction député c'est diamétralement opposé parce que ñoom ñoo waxoon devant les Sénégalais ne ñoom à niveau li dul dox seen biir te ñu dul def mooy cumul de mandat moom moo ko njëkk a def. deuxièmement Birame Souleye li muy wax nii Birame Souleye dafa yab Sonko ñeme ko parce que Sonko mënul def cumul de mandat ëlbatiku ne moom na démissionné muy deux. troisièmement Birame Souleye li wax du dëgg Abbas Fall moo njëkk génn ne. en interne Pastef ils ont discuté képp koo xam ne da nga doon député doon député doon maire tu es contraint de démissionner après élection législative Abbas Fall moo ko wax. moo tax euh, Birame Souleye bu mu génnee di wax man leen mais Birame Souleye ndax dafa yab sénégalais wala dafa yab waa Pastef wala Birame Souleye il se croit Dieu parce que mooy président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi di maire administrateur Pastef. loolu man li ma ci wax rek mooy li ma ci waxoon mooy que ne Birame Souleye day ni ko il ne respecte personne damay nettali benn anecdote après législative passée la presse bu ñu euh, benn point de presse xam lu mu leen wax mhm. yéen vous la presse la xanaa tey la ngeen woo ngeen di ñëw fi lañ daan woo bu ñëkk daan bu ñu rulee dara ñu leen woo dañ ñëw mhm. pour wan la maanaam étroitesse su esprit maanaam ñàkk xam-xam ak ñàkk bu yaram ak ñàkk xamu addunam bi ma am muy benn beneen bi may wax mooy gis nga nit Euh, boo nekkee ci réew doon mhm. daw di politique daa am loo xam ne ci bàyyi xel mooy sa kàddu mhm. sa kàddu mooy du ñu def lii duñ ko def dañuy def lii dañ ko def mhm. te ma fàttalee Sonko ak Birame Souleye ne dafa am loo xam Sonko daf ko waxoon Sonko dafa waxoon ne dafa am pratique yoo xam te ni daf ko décrier ci PS décrier ko ci PDS décrier ko ci APR ne ñoom bu ñu ñemee bay def pratique yooyu ñoom ils sont pire euh, parti yooyu wala coalition yooyu boo jàppee ne Sonko avait régné l'opposition dans le temps muy PDS ak PS ak li mu ci wax boo jàpp ne Sonko li mu waxoon ci cumul de mandat yi tey ak fi mu ci toll boo xoolee Sonko position bi mu amoon ci justice sénégalaise ak position bi mu ci am tey kon li may wax sénégalais yi mooy en résumé ñii li ma ci waxoon départ bi lay waxaat Sonko du dëkk Sonko dëgguwul gëmul li muy wax te li koy étayé mooy lépp lu mu prôné woon comme rupture ba muy tàmbalee créer Pastef ak projet tey loolu lépp dëddu na ko ginnaaw te ala ko jëlagul nguur te nguur dab na leen ndax gestion locale am na commune yoo xam ne ñoom ñoo ko am député yi ñoo ko yor mais su wax sénégalais yi foofu ne leen ñoo xam ne jotaguñu nguur gi dañoo yor député maire lépp lu ñeen waxu dañ la bëgg jël nguur gi tax na principe bu ñu amoon ñu teg ko fële ñooñu na ngeen xam ne yéen sénégalais laa xal ñooñu duñu waxatu dëgg ay manipulateurs lañu gëmuñu li ñuy wax te bu ñu yoree nguur ils seront pires que le PS le PDS et l'APR au Sénégal loolu moo ci sama tool. waaw mais mais mais mais tey je pense que position bii nga am. Mhm. Euh, je pense que position bii nga am ni moom ngay am aussi tey ci question troisième mandat pour Macky Sall mhm. ndax wër na fu ne mhm. mu ne du def troisième mandat mhm. te léegi gis nañ ne yéen waa APR fu ne yéen a ngi fay taxaw di soutenir troisième mandat donc kon yéen tamit li ngeen waxoon tamit da ngeen ko bëgg a renier wala Thierno xamaloo damay indi benn pression d'abord kenn déggagul président Macky Sall mu wax. nangul nangul nañ la ne kenn déggagul. mu ne damay def troisième mandat mais dégg nañ ko mu ne du ma wax oui du ma wax non. mais parce que nag aussi. c' est que moom calendrier am aussi. calendrier politique am la wax. waaw mais est ce que réew mi xam nga man xam nga man ce que je comprendre ce que je comprendre. xam nga mooy lan. Mhm. mooy est tey. Mhm. réew mi war nañoo toll ci calendrier président. pour mën a xam ba xam Macky dafay présenté wu am du présenté est-ce que réew mi war nañ toll foofu c'est man loolu mooy sama problème fu mu toll nii mooy sama souci majeur. mais Thierno man li ma la ciy tontu mooy Sénégal réew mi yoo xamante ne la est-ce que Macky Sall day présenté du présenté wu concerné wu Sénégalais yi parce que dafa am ñaar Macky président de la République ak Macky Sall président APR di euh, euh, euh, conférence des leaders benn Bokk Yaakaar.

man dama bëgg président Macky Sall mu déposer candidature loolu sama engagement personnel la. Mhm. kon da ngay soutenir troisième candidature. bien sûr muy deuxième quinquennat am dama koy soutenir parce que d' abord man dama ko teg ci ñaar kon li nga wax ci cadre Birame Souleye ak Ousmane Sonko nga bañal leen kon da nga nangul président. ah non man dama ne man Modou Fall am naa sañ-sañ ni man bu ma sañoon président mooy doon. candidat waaw mais Macky saal moom moo wër fu ne. mu ne moom du nekkaat candidat bu ngeen ma joxee bii mooy sama deuxième mandat et te mooy nekk dernière. balaa yam dem na ba méngale ak dama la ko nangul. waaw mais dama ne. Mhm. man li dal sama xel. waaw ci contexte mondial bi. Mhm. li dal sama xel ci contexte mhm. sous régional bi. li dal sama xel par rapport ak. opposition bi fi nekk tey. ñu doon ñu irresponsable. ñu doon ñu violent ñoo xam te ni tey il menace même la paix sociale de sa pays. man li dal sama xel laay wax. li dal sama xel nag. dafa jéggi kàddu président Macky Sall. ndax intérêt supérieur du Sénégal. jéggi na kàddu Macky Sall jéggi na parti parti euh, kàddu ku ne. intérêt supérieur xam mooy lan Thierno Ousmane Sonko ak yi ñooñam tey sont indisciplinés du ñu wax dëgg ay manipulateurs. loolu wax nga ko ba may ma rek ils sont boo pare li gën a garaaw Thierno. Mhm. ñii ak contexte bi am mooy le Sénégal avec le pétrole et le gaz gis nga euh, cocktail boobu noonu Thierno damay wax ne ñii mënuñu koo gérer mooy Ousmane Sonko ak ñooñam kon man jàpp naa ne man moo Modou Fall tey te je lance un appel solennel au président Macky Sall président ba ngay bind conseil constitutionnel da nga leen wax ne leen vous avez un mandat de sept ans président il a écrit au conseil constitutionnel en 2016. yow rek la ñuy déglu. ba mu ko waxee li mu wax. Thierno day baax aussi parfois ñu koy fàttale dane sur la question des mandats en 2006 le président Macky Sall avait saisi le conseil constitutionnel première question du président Macky la question que le président de la République a posée désormais le président de la République sera élu pour un mandat de cinq ans nul ne pourra faire plus de deux mandats consécutifs loolu rek leer na non xaaral non xaaral ma ceeb na nul président Macky Sall non moom moo ko bind. jeex na non laisse moi bàyyi ma ba Thierno may gële mu ne est-ce que je peux appliquer cette nouvelle durée du mandat présidentiel à mon mandat en cours en guise de bonne foi conseil constitutionnel ne ko dans sa décision numéro 1 du 12 février au regard de la pratique constitutionnelle et des précédents conseil constitutionnel ñuy wax ak président Macky Sall le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision par aisance intangible et hors de portée de la loi nouvelle paragraphe 30 des motifs en conséquence avait-il en conséquence avait-il ajouté dans son dispositif le conseil constitutionnel la loi nouvelle sur la durée du mandat du président de la République ne peut pas s'appliquer au mandat en cours Autrement dit, le mandat en cours est écarté du champ nouvel de l'article 25. Cela signifie qu'on ne peut pas le comptabiliser comme l'un des deux mandats autorisés par l'article 27. xam nga Thierno dafa am lu ñaari am bu dee sur le plan juridique la ku dul tey yàlla tax ba ci constitution yi wax le conseil conseil constitutionnel a clos le problème des des des des des mandats du président Macky loolu dafa féete boor beneen bi. tey kan mooy euh, rabi euh, rabitaay loolu au Sénégal c'est Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias tey ñoo taxaw ne danañ taal réew mi ñoo taxaw ne Macky Sall du fi am beneen mandat fi may njëkk a tàmbalee c'est Alioune ak ñoom caat ñi génn di wax xam nga Sénégal ce qui ma. mais li nga wax nii di pisang nii nga foog ne convaincre. non déedéet dama ne dama ne attends dama lay tontu yaa ma laaj conseil constitutionnel wax mooy problème bu njëkk mooy ñu doon wax ne sur le c'est anticonstitutionnel que Macky Sall amaat benn quinquennat dama ne conseil constitutionnel daf ko réglé 2016. mais ñi xam ils ne le disent pas aux Sénégalais d'abord parce que aussi wax bu amee la ci am Thierno nañ ko nañ ko réglé noonu beneen bi Alioune Tine bi taxaw di wax loolu naan woy Macky Sall bu mu taal Sénégal beneen bu tekee beneen mandat nangam nangam mais Alioune Tine mais xam nga lu lu ma jaaxal un homme boo xamante ne bii moom moom Sénégalais moom la ñu war a waxal Thierno xam lu tax Alioune Tine daam lu may fàttali ay yow Alioune Tine mais émission bi du du du Alioune Tine. non xaaral xaaral nañ nañ nañ mais Thierno nañ ko dama ne. damay préciser damay xam nga tey li li ëpp solo. waaw li ëpp solo. mooy tey kaddu kaddu dafa am solo ci même réew. bu nekkee tey kàddu amatul solo. man je pense personnellement que nekk ci réew mi sax wóoratul. ndax ku toll ni président de la république. bu demee bay méngale ñaari màndaay ak julli it. ba ne su imaam sax bañee sëlmal fekk leen ko foofu. waa loolu lan la ci wun. waaw Thierno ma posé la question président bu taxawee wax loolu mais Thierno li nga wax loolu la président Macky Sall wax ba muy bind conseil constitutionnel. waaw léegi président léegi président léegi man léegi man Thierno dama ne comprendre mooy yéen wala benn APR wala Benno Bokk Yaakaar dafa mënul amaat. keneen koo xamante ne mën na nekk candidat wala dama ne dama ne Thierno c'est que sa xalaat sama xalaat ak xalaatu Macky Sall laa wax. kan moo féete kaw ak ak ak kaddu conseil constitutionnel. yow rek la ñuy dégg non conseil constitutionnel. yow rek la ñuy dégg du dëgg président en bonne foi li ma la liiral président moo ko wax conseil constitutionnel moo ko tontu dama ne. waaw ah, non dégg naa dégg naa kon loolu problème am na droit bi loolu dootul débat depuis 2016 ñi ko bëgg a indi débat ñoom ñoo ko indi débat te loolu dafa am leneen lu ko été Thierno. kon yéen daal jàpp ngeen ne seen candidat 2024 Macky Sall. non dama ne attends kii kan ma wax li c'est Ousmane Sonko. di champ xam nga Thierno li ma bëgg a wax mooy foofu. sénégalais ku nekk am nga droit xalaat mais li conseil constitutionnel wax 2016. waaw léegi ma non may ma moom la may ma. li nga teg li nga teg loolu la Sonko. li nga teg nii may ma Thierno waaw Thierno dama ne xam nga li nga teg nii. c'est bien beau. non c'est pas beau li nga teg nii rafet wala ñaaw xaaral rek c'est li nga teg nii. c'est la loi. la loi. voilà c'est bien beau mais tey moom la tey. waaw ak fu jamono toll. laa wax ñun ak fu jamono toll. Mhm. est-ce que tey waxoon nañ nekk ci contexte boobu. si mun nañ koo nekk Thierno xam nga tax dans une démocratie nag Thierno liberté d'expression liberté de pensée ku nekk da koo am. Ah, liberté de pensée kon ñun aussi am nañu sañ-sañu ne ñun suñu man bokk sama mhm. xalaat ñun les mhm. patriotes de la parce que ne président Macky sal tey li jamonoy doxee. juróomi at yi ñëw te muy yu mujjëm ñun mooy suñu candidat néew ñu mooy doon président bi ndax aussi entre candidat mu jaar conseil constitutionnel ak le peuple sénégalais joxaale mhm. benn mandat yaa dafa am écart te loolu jàpp nañu ñu ngi koy liggéey tant ci plateau yi ak sur le plan politique kon foofu Thierno li ma ciy wax rek mooy que ne président àddoogul mais man Modou Fall day sur le plan juridique président am na droit bi leen li am solo li mu ko wax ne Thierno moom la effectif président moo ne bii mooy sama dernier mandat président Macky Sall moo ko wax waaye en 2016 ba mu bindee conseil constitutionnel li mu ko tontu Thierno dama la ko liiral te du kaddu Macky Sall kaddu conseil constitutionnel. ah may ma entre entre entre la nga xam te ne bii. Thierno léegi à quoi sert la parole du président de la République. la parole du président la République n'est rien devant devant kii. Euh, euh, euh, arrêt conseil constitutionnel. aussi bu dee on est en démocratie. dans un pays de droit mais léegi ah, léegi mën naa la laaj mën naa la laaj benn affaire. APR wala Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñoom dañu jàpp ne. keneen ku ñu mënti choisir ku dul Macky Sall bu ñu demee élection dañuy perte wala. ah déet loolu kenn waxu ko de. lan moo tax mën ñu ut numéro 2. ah waaye dama ne Thierno ñun APR mosuñu am. wala am numéro 2. xam nga bu ñëw attends Thierno. bu loolu du débat. xam nga du débat mais tey kuy remplacer Macky Sall. ba mu may ma APR. ndax Macky gars yi nañ du bokk. non kan moo ko war a remplacer. waaw bu dee gars yi moom moo waxoon du ma bokk. waaw Thierno xaaral bu dee gars yi ne nañ du bokk. en plus moom it mu waxoon du ma bokk. ba keroog conseil constitutionnel di joxe avem ci la données changé. aussi loolu Thierno xam nga aussi bu ñuy waxtaan. bu leen taal réew mi xam nga tey li nit xeexoon 2012 jamonoy Abdoulaye Wade ah, xeexoon ko depuis boobu. tey ci même contexte mais mais c'est triste. mais Thierno bu nekkee dañuy ñëwaat même contexte. Thierno ma posé la benn question est-ce que Sénégal nit ñi amuñu droit am avis contraire wala avis divergent mais Thierno tey mën a yow bu ñu amoon contentieux kan moo koy tranché ñun ñoo koy tranché ñun wala yoon moo koy tranché. yoon mooy tranché kon kon Sénégal dama bëgg wax ne muy Alioune Tino di Sonko di keneen may wax Sénégal surtout la jeunesse sénégalaise gis nga réew ku la ko tàlloo moo la sànq. gis nga réew boo xam te ne dañuy dem élection non attends dañuy dem ci législative Thierno dañuy dem ci législative mm-hmm. l'opposition ay presque quatre-vingts euh, députés mm-hmm. du dëkk mm-hmm. ñu dem ci élection législative mairie Dakar ak dak fu nekk doon dugg ci fépp ngeen perte ko kay non non du fépp de Thierno ah, non attends kon kon kon kon li may wax mooy dans ce pays là dans ce pays foog naa ne du violence du xuloo xeex saaga mooy tout se règle par la loi ak travers les urnes. Ah, mais kon may lancer jeunesse bi ne leen. Mhm. Euh, Alioune Tine Paa la. Sonko tey il est nanti oto mi dawal benn quatre-vingts millions cent millions lay jar Barthélemy Dias ngi yor tool boo xam te ni tey bu bàyyoon mairie Dakar dem tëdd ci tool boobu il va vivre ba ba dee du dëgg dañuy waxtaan rek <laughs> kon tey. taal leen seen réew ñun suñuy papa ba ñuy juree Thierno muy man di yow keneen c'était pas pour que ñu doon ay ay ay ay chair à pour lan la ñu jàng ñu uti métier ñu qualifié liggéey bokk ci lu jëbale suñu këram jàppal suñu waajur kon tey Barthélemy Dias doomam mosul génn xeex Sonko doomam mosul génn xeex reylu doomu jàmbur yi denc seen i doom reylu doomu jàmbur yi denc seen i privilège seen i jabar xeexloo jabaru jàmbur yi denc seen jabar seen i kër dama ne boo leen defloo Sénégal c'est de droit et loi constitution sénégalaise mooy mooy tranché te loolu conseil constitutionnel mooy li mujj leneen li ma ci teg Thierno ñii wax ne Macky Sall bu demee élection day perte ak dañ koy gagné seen droit la mais bu dee wóor na leen mais bu demee premier tour lañ koy gagné coow waru tam naam nañ dem ci élection buñ ko mënee gagné ñu gagné waaye bu leen mënee gagné ñu gagné te ce qui li may wax rek Macky Sall mbër la ci politique te ñoo la ko xam seen wax jépp Thierno xamalal la waa ji li muy wax a fañi fañ a caa ku mu ci dajal ci ñoom ci champ politique bi mami du mimi. Macky Sall du Mimi te 2017 2019 koy fàtte sénégalais on ay 47 pour pour cent dama ne on ay 46 pour cent Sénégal damay wax ne parfois da ngay dégg ay dàmbooj ak keneen keneen di nax Sénégal naan leen wéy 47 pour pour cent soo ko dégg naa koy wax mais dama ne kuy waxal te yàlla tax xam nga ne Macky Sall sa personne. ànd ak APR ñëpp xam nañ ne am na valeur agité au minimum entre dix et quinze pour cent mais nga xool les dernières élections yu am fii. waaw boo xoolee élection locale la ak élection législative. Mhm. tey bu nekkee tey dañ ci basé wu. Mhm. chiffres yi nga wax élection yi démentir na ko. ah xam nga lu tax démentiru ko. Thierno mhm. dama lu ma lay fàttalee. Euh, élection législative 2017 on a eu quarante huit euh, quarante sept pour cent législative yii passé nii. cinq ans après attends on a reculé que d'un point législative yi mooy que ne politique lépp loo gis galgal la honnêtement opposition bi intercoalition bi ñu moom. aussi félicité félicité daf ñu daf ñu gaañ mais leneen li ma wax opposition boobu tas na tey Khalifa il cherche candidat. Eh, pur day am candidat. mais entre temps am candidat yéen tamit tas ngeen de. ah fu ñu tasee. Mimi Touré ngi nii. waa Thierno <laughs> c'est que parfois nag man journaliste yi parfois yéen da ngeen bëgg nit ñi wax ñun waa affaire yi ñu wax rek. xamul tax te lan mooy seen problème. mooy problème mu mandat tey mimi lu mu daj APR yëpp Khalifa Sall tey lii ngeen fayee mimi Touré xaaral Khalifa Thierno euh, Khalifa Sall a quitté le PS. mais une brave dame vraiment histoire histoire. Euh, Aminata Touré jóge États-Unis ñëw ba fii jàppale président de la République. nekk une femme de valeur. tey lu tax mu mu mu question de troisième mandat. <laughs> xam nga Thierno mais loolu. <laughs> avant avant législative bi bu mu doon tëdd liste geddul ndax troisième mandat. ba bu mu doonee député geddul trois ndax troisième mandat. li tax mu gedd mais ah, position am ci loolu musul bari non dama ne. Thierno xam nga Macky Sall bu ameloon dara contre Mimi Touré Thierno xam nga aussi sénégalais laa waxal. nit da nga am xel. Mimi Touré Macky Sall bu amoon loolu contre moom du ko jël def ko tête de liste. xam nga tax man soo may Macky Sall ab Aly Ngouille wala Amadou Ba laay jël def ko tête de liste wala Idrissa Seck wala Aminata Mbengue Ndiaye du ma ko def Mimi xam nga tax Mimi deretam neexul sénégalais amul bayra jubul ak sëriñ si dañu wax ne dëgg yërul ñetti nit la preuve en est que J'évoque l'histoire. Djibo Leyti Ka est sorti du PS. Mass topp ko mu Niasse est sorti du ko Idrissa Seck est sorti du PDS Mass topp ko Macky Sall bi te il est sorti du PDS Mass topp ko mu dem doon président de la République Sall sorti du PS Mass topp ko mais je vous pose une question ban maire ban conseil municipal wala ban député ngeen gis mu topp Mimi ça revient à quoi <laughs> mooy que ne gis nga dem na mu moom boppam cundung ñoo dem Mimi amul base politique amul assise Mimi Touré apporté lu dara président Macky Sall au contraire ay problème la ko indil yow nga ñëw ñu def la ministre de la justice def la premier ministre nga ñëw naan on accélère affaire bi réew mi rétrogradé Macky Sall jëlee la foofu yóbbu la euh, au conseil nga dem foofu defante defante ñu jël la fa def la chargé de mission xaw ma pareil ñu jël li gën a garaaw ñu jël la def la Mimi bu mënoon dara ñu def la tête de liste ñun ñëpp ñu futeeku jàppale la on se doon def yëpp Macky ko def la ah non dama ne dama ne. bilan bi laa wax. beneen bi xam nga tey Mimi politiquement attends da dafa dem man la Mimi. grand yof la bilan comptable de Mimi Touré c'est Macky Sall. non bu nekkee Mimi lu mu def yëpp baaxul. non non dama ne dama ne Macky Sall lu mu jëlee ko premier ministre dafa ko jëlee yóbbu ko beneen poste de station parce que il évalue. aussi non dafa jommi woon rek. moom teggi woon na sax poste premier ministre yóbbu ko. mu jékki-jékki mu andiwaat. non kooku dafa jommi woon rek Mimi bu mu fi jógee Boun Abdallah est venu kon aussi. après Boun Abdallah ba ko fi jël ba Macky. il a jugé à un moment que ne moom premier ministre kiiw ko ma ne que nag je le man président mu ngi ko dindee en mon nom avec j'ai man rek bu doon man maay président Macky Sall. Mhm. wala ma jege ko du ma dindi poste premier ministre. ah jeex na kon man personnellement loolu je l'ai te tey avec le premier ministre Amadou Ba on voit que les choses bougent avec son gouvernement pareil c'est l'occasion aussi. donc ñu continuer ndax euh, euh, perdre nañ temps bu bari ci ci loolu gis nañ ne actuellement nii ñu ngi ci marathon budgétaire bi am assemblée. mais naka nga ko jàngatee par rapport ak le comportement de nos députés muy ñu nekk euh, ci pouvoir ak ñu nekk ci opposition. li ma koy jàngatee dama koy résumer ci lenn mooy Abba Mbaye mu taxaw di day xeex ak bu jigéen <laughs> ci loolu koy résumer Abba. waa mais ñu mel ni Farba Ngom far far Farba. Eh, mais il faut euh, non xam nga. xam nga Thierno génne ay kàddu yu ñaaw. Thierno xam nga magum jëmm boo toogee ay xale ndaw di la saaga bu yoree na nga fu teeku. waaw mais dama non may ma rek ñoom dañuy taxaw wax n'importe quoi ministre yi dañuy taxaw wax n'importe quoi président Macky Sall waaw mais au retour nag war nañ nangu gis nga politique. waaw mais mun nga waxte doo saaga. Ah, doo doo ah, doo non ñun damu ñuy table doxuñu ci kaw table gii Mari Sagna comme ay ku nekk CI. wu ñu wu ñu keesu vote dañuy waxtaan mais nit dama la nit xam na foofu tolloo Thierno. Mhm. nit ku ne nit nga. Guy ma Sagna ay ay ay Aba Mbaye ay Abbas Fall Barthélemy li ñuy def mais mais nit nit nga da nga dem boo xam ne ni da nga say nit du ñoom dañuy critiquer Macky Sall à l'Assemblée nationale lu tax kenn du critiquer Sonko. dañuy critiquer ministre yi parfois. attends mais tamit. ah déet suite boote ko moom. non xam nga loolu tamit. dama ne gis nga Thierno. lu ñu la waxal mu métti la rek <laughs> am na la ci dëgg. xam nga tey <laughs> xam nga tey xam nga tey li may chaque jour. waaw donc tey question Ousmane Sonko. ak Adji Sarr ñu rebondir si très vite en deux minutes. tey moom moo yóbbu tey ñu am assemblée bu mel nii. mais lan moo tax question boobu. boobu ba léegi depuis deux mille vingt et un ba léegi dossier boobu di traîner dafa mel ne même dossier bi. ñi ko war a toppatoo wala tey président Macky Sall tey ñoom tey dañu ragal tey Ousmane Sonko. mais bu ñu ko ragaloon du dem wuyu ji. xam nga aussi Thierno mais dafa dem ba sonn ne leen woo leen ma non non il ne peut pas il ne le peut pas ko neexee mu génn wax ko en public Ousmane Sonko dama lay ñaar tour bi muy tourne bi muy def il savait que ne peut-être ak information yu avocat mi am il serait convoqué. parce que dama lay rappelé leen Thierno. mais dossier boobu bële Sonko septembre la woon dem tourné muy benn. mais en plus muy recadré yéen journaliste ngeen en plus dossier boo xamante amul dara Thierno attends dama leen di recadré Thierno instruction ni ministre de la justice ni procureur ni président de la République kenn mënul wala avocat tempo. Euh, euh, juge instruction bi. da nga am wax ñu bàyyi latitude du. waaw ministre ministre euh, juge d' instruction mu liggéey liggéey. xam nga xam nga da nga wax wax ju am solo. xam nga mooy lan. Mhm. nga teg évoqué loi. Mhm. évoqué conseil constitutionnel. Mhm. tey viol. lan la. viol tey buñ koy àtte. dañuy àtte viol comme ku rey nit. mais tey naka la lañ koy toppee loolu. Mhm. jël ñu ko tëj ko ci kaso bi. Mhm. mais dañ ko bàyyi mu génn nekk sous contrôle judiciaire. ah non attends Thierno ñaata nit ñoo fi ñoo fi rey nit rey na nit Sénégal nekk sous contrôle judiciaire. ah non may ma may ma li gën a garaaw li ngay wax détournement de deniers publics lan la. non dama ne non attends non attends dama ne nañu resté déedéet déedéet Thierno parce que da ko bëgg expliquer non Thierno waaw xam nga aussi man maa su may wuyu tontu. maa ngi sama argument waaw mais xam nga li ma engagé mooy. waaw euh, nit def na euh, crime euh, détournement de deniers publics crime la nit def na ko ñu defal ko LP ba kenn ñu koy jugé. nit rey na fi nit ñu defal ko LP ba bañ ko juré Ousmane Sonko dama lay fàttale il est sous contrôle judiciaire loolu bu ko nit ñi wax aussi dañ ko wax. beneen bi man gis nga kaawu Sweet Beauté bi man dama koy résumer chaque jour ci lenn lu mun a am Adji Sarr n'est pas fautif Suisse n'est pas kenn fautiful. Mhm. kenn moo fautif ci ñàkk faydam ñàkk classam ñàkk irresponsable bëgg lu yomb ak bëgg jigéen si ça la vie muy Ousmane Sonko parce que dama ne man du Fall muy yow Thierno ak keneen un homme sa se respecte là dans ce pays waxuma musulman ou chrétien ou juif doo dem Sweet Beauté nañu waxante dëgg Thierno salon salon de massage yi Thierno dama ne salon de massage yi dans ce pays et je le dis ici fii te ma lancé appel état salon de massage yi Thierno dans ce pays yii ñuy wax ni benn ci ñoom amul crédibilité te lu ci ëpp ay caaxaan moo fa am. Mhm. kon kuy homme d'état ak ku aspiré ku nekk Sénégal doon responsable li ma lay wax mooy ne faites pas comme Ousmane Sonko dem suite beauté dem ci salon de massage yooyu nga xam te ni seen i même seen i sites yi ñu yor maanaam melokaan yi ñuy wane jigéen ñi pour nit ñi ñëw di fa massé wu du du loo xam c'est pas respectueux kon lu mën a am moom la yore ñaari jabar. de mën a dem hôpitaux yi mën a dem ci cabinet ci cabinet yi doon député am possibilité yi yore partem ay kinésithérapeute nekk ci biir partem xalaatoo lenn couvre-feu jot ngay dem Sweet Beauté lu fu am rek c'est de sa responsabilité li ci des nag nañu dimbale Adji Sarr Sonko Sonko Adji Sarr man dama ne les questions de l'heure pour man dans ce pays c'est comment développer l'agriculture comment régler le problème de l'emploi des jeunes dossier Adji Sarr Ousmane Sonko gisoon ne sénégalais yi àtte nañ dossier ba pare. non kon justice amul Sénégal ah oui. parce que sénégalais yi taxaw nañ ne leen Ousmane Sonko kon justice amul deful dara kon kon li aussi ça ne prouve rien. ah, ah certificat médical daam benn détail bu ma ciy wax les gens te disent que ne way euh, euh, kii bi nu mu tudd gynéco bi nee na deful ay ay rapport dans les vingt quatre heures mais li ma li ma jaaxal. mais deuxième no mais Thierno Thierno <coughs> Thierno laisse-moi parler. mais reetaa dafa reetaa léegi dama lay poser question. non non waxal rek maa ngi lay ce certificat médical rapport médical la sax te di que ne des prélèvements ont été faits pour test ADN léegi man li may laaj mooy gynéco bi ci xam. bien prélèvement la def pour pour test ADN. moom moo ko ah kon nag ñu bàyyi justice. mu liggéey liggéeyam moom moo ko xam déedéet Thierno moo tamay la na ñu bàyyi justice mu def xam ñu jeexal ci dernière question bi lan mooy seen avenir politique euh, biir Thiès ndax gis nañ ne cees moom ki ngeen fa euh, yaakaaroon tey muy Idrissa Seck ngeen woo ko teg ko ci gouvernement bi apportelul presque dara APR wala benn Bokk Yaakaar ndax gis nañ ci élection yu mujj yi. gars dañ leen làbb làbb yu metti foofu. waaw c'est vrai que seen avenir politique. les commentaires sont libres les faits sont sacrés on a perdu les locales à on a perdu les législatives c'est que nag il y a eu des des y a eu ci ci choix yi ci local yi ci choix yi c'est la vérité mhm. les hommes qu'il fallait choisir les femmes qu'il fallait choisir ci législatives locales yi même législatives yi on a eu même les mêmes cas ñi ñu jël def leen tête de liste wala def leen député mhm. parce que yow mënoo jëlub liste muy titulaire wala suppléant ngay jël ñoo xamante ne bi yoruñu ñett nit pour des problèmes de complaisance ñu ñu jël leen tabaleen loolu lépp dafa jur aussi ñu ñàkk les locales yi làkk législatives yi leneen li ma ciy teg aussi mooy que ne gis nga parti te là j'interpelle le président Macky Sall gis nga Thierno man je te jure devant Dieu amul nul qui qu'il soit Thiès nit jiitu na ma ci parti jiitu naa nit ci parti bi mais combat yi ma ko porteel ñu bëri ñu ngi cees di wax wala ñu ëpp may capacité pour ci mbir sama comme porte euh, euh, porté ñu ko. Mhm. mais pour autant man daam lu ma gëm man Thiès laa gëm ñun les patriotes dañ ne le président Macky Sall li li ñuy tax ñu koy jàppale c' la relance des routes de chemin de fer c' est la relance des NSTS c' est l' assainissement de Thiès c' les routes secondaires. c' est un hôpital de niveau trois wala quatre. yooyu la xaar ci président Macky pour emploi pour santé pour développement. kon fi ñu mooy président ñun de waxuñu ne mun nañ gagné Thiès pour moom. Mhm. mais y' a un travail en train de faire et dans les trois communes et dans le département. mais li ñu soxla aussi président au delà ça ne jàppale Thiès te aussi président nay wax ñun te fi may terminer foofu Thierno damay wax leen. et j' espère bien parce que président Macky Sall bu mu ñëwee à Thiès il m'a dit que dina me recevoir pour une fois je parce que président c' est bien beau que tey ñu ngi jaay ay carte APR mais APR tey problème du jaay carte moom njëkk parti APR c' est le réseau des enseignants moo dafa am problème parti APR COGER dafa am problème. Mhm. parti APR structure famille. doxatul seen parti fépp am problème kon yooyu tey xeex rek non attends même si jaayum carte ji amoon li may wax mooy président Macky Sall <laughs> yooyu bu ko réglé waatee organiser ko moom en parce que c' le chef. jàpp na jàpp naa ne fi jëm mooy 2024. Euh, et dès la première tour et avec la manière le président Macky Sall aura un deuxième deuxième quinquennat beneen beneen candidat moom yàlla nañ ci yàlla ndax ki ñu doy avec le bilan eh Mimi Touré sax wax na ko ah. même Mimi wax na ko Mimi sax euh, nee na def na kenn deful ah kon nag Eh, fort de ce bilan mbokk internet yi rek yéen a ngi woon ak eh, Modou Fall di responsable APR Thiès Modou Fall ñoo ngi lay bàyyi en une minute nga tàggu Sénégalais li may tàggoo rek mooy fi ma woon a tàmbalee di ñaan jàmm ci réew mi di souhaiter vraiment coupe du monde bu ba mag bu rëy pour Sénégal yalla may ñu coupe bi loolu la ñuy ñaan ci barke Cheikh Amadou Bamba El Hadj Malick Baye Niass Baye parce que ñun ñooñu ñooy suñu référence beneen bi di nuyu waa Thiès yëpp rawatina balaa bee bi ma jógee ak Grand Thiès di nuyu les patriotes de l'APR. dafa am samay rakk yoo xam ne xawoon nañu tolof tolof fan yi muy Mahaba di Bas Dieng ñooñu samay maanaam xam nga na politique euh, kii lu gën a neex ci àdduna mooy yoroo ndombo tànk après yoroo yenn moyens yi mais ay xale topp yoo xam te ni yëkkati cent cinquante deux cent jeunes ñu ànd ak ñoom du dara si ñoom kon tey ma leen di wax ne leen les patriotes de l'APR ñëpp li ñu gëm mooy la jëmale Sénégal kanam surtout Thiès ñu ngi ci et on va continuer may nuyu ñëpp leen sant.